yéen kan mooy seen bër lambi way sàcc na tey ku ne naa moo mën a way ba waral coow li ne kur yéen kan mooy seen mbër waaw waaw kon xam naa bàkk bi du gudd ndax Cheikh Ndaam daa am noonu dee maag moom moo tax bàkk bi du gudd am na xalima bu ma ko indiloon di xanaa waaw xalima bi ma ko indiloon lambi way fu mu sàjjee ba mbëri samp seen ndënd ñàkk sikk bu teewee ko dib ragal na lagg seexi ndaam mënuloo way dinaa la wan ni nii waye waaye nag bala ngaa xam ñëwal fii la wan ni waaye nag bala ngaa xam ñëwal fii nga ramte sut naaru góor bi ma war man dafa gaaw dox du dëkk dëkk fasu soox bu ko ràmbal dafay tënëf yow nga damm naaru góor yi ma war man dafa dafa maa la man kala man maa ko man te lii de njoroo jaa ko tey aw yëg am xalima gi am xalima gi am xalima gi muy sax xalima ndax xalim wurus maa ko moom dafa leer naññi naññi yow bul ko sikki yow bindal ma ci aw xàbbu rek su gaa yi daal di xool junni moo ngi bu dëmmul ma jox la tëj ci aw yëg gaynde jaay gi di buur àll ñaay bi foofu ne tëll xanaa tey da nga bàkkoo beneen baxar bu dul ñukk sab xarit nga di sab booy ma daal la wan ni nii waye moo waral du ma dóor waaye tey xindaan naa la xam naa daa xaw a kii day sama xarit daal moo tax xam naa bu ñëwee am nu ma def waaye daa koy kii ndax ñëpp xam nañ ñu defe waaw ñu wayloo ñu ci baxaru kaamil danañ juubaa ak yonente bi bu dee ma ni lii bëggeel la ba xel mi dëkk gën a koo xalam dara feesatul sama bët ma ndax jinne laa dajeel xuuru ay li la bi kat daf ma ëlëm li ma songu man na ma ji mbëggeel bu ne amul su ma dee nelaw di ko gént rek di janeer jëmmam ma ne kenn kenn nu bëggul baraw ma ci ak mbëggeel su ma dee nelaw di ko gént rek di janeer jëmmam jaral ko am ngërëm la ko Moustapha jaraloo na rëy te yemul ci wax dafa jëf ba ñépp ne cay te làq na cay ndamam ndax yàlla moo ko joxañ yóneen ne ko kenn du yegg di ci man te wéet ku wuloo ci moom ba amee ngërëm fekkoon na sang gi ba yit di sàkku ci yàlla ah madu mii di jaam bu ko soppu dooni liggéeykatam mu ne ay cogon fas naa liggéey yàlla yalaat yokku xelam la mu njëkk def mooy sàmm yoon wa mu bàyyi woon di ko waggaral ko te nanguwul ku bëtub ñagam te dunawu ñoñam te takkuwu fitam di bàyyiwu sasam setalub xolam nammum xelam sot ay xalim te dunawu ñoñam te takkuwu fitam di bàyyiwu sasam setalub xolam nammum xelam sot ay xalim na mu koy taggee dafa géet diggaa di ci aw kañam ña ko jiitu woon ñoom ñépp mujj dina ñoo bu ko daa woyal day xentu bég te ma def géwal di ko feeñalal la ko yàlla ji tële cig mayam waxi jikkoom di wanew malom danu koo tagal ni ki am nataal booy jàng saf mu janoog jëmmam ba ñu jëkkalan tey wut ngëneel la ñu fekk buur bi saxal ngëneel la ca kii mu tànn na ci kàttanam di ko bàgg naa ko samay hadi ya ci yow la jëm yow rek yaa xëye yoo jëlal ndam yaa ko am sama lépp ak sama ñépp san ngi borom sama leeru xol bi ma fekk ci gàtt te ngëlëb fu mu yëkkatee xalimaam yu nen ba di maare lool bëgga ñam bëgga muy ree sëriñ bi ndaxum bégam ba sëriñ bi mujj ju na am lu góor musuloo na làq te ci ak jegeem am raaya boo la ca am ngërëm ba yeneen fayee ko gën ci lees di fi dox di wut muy càkkutéef ya solal ko man topp xéewalam dollil ko del ko lu jomm ñépp bu ëllëgee moo koy ndamoo di ko bàkku takk di aw la yam naa kii di ax Madu Mbàkke mooy ki ma nekkaloon sama xeet bi mooy ki ci ëpp ñum jële cig lëndëm kii mooy borom tuubaate moo saxaloon tagam waca man te tey maay def géwël di waney mayam mboolem ku daa ko jëfal ja tey woo naam nexeem ku ko soob ku faw mu mbugal araam na ci ab deram fu mu bindewaat ba tudd turam dina ñaan ci buur bi mu tëb bu koy xéewal te doon li ko ak muccam naan rabbi sal li alal habibi muhammadin wal aali wal ashaabi doo rataji wayam wal aali wal ashaabi doo rataji wayam mana way waral ba mu jàggi tër ña ko sóoru woon aca kon ma woo ku xam ci way ràññee ko lool mana way waral ba mu jàggi tër ña ko sóoru woon sëñ Modou Diané la jëkk a jël teg ci bangam ne ko doomatee dem romb koo ka daje keneen Baye Sall Sofi ba mu nee bëreet dal ci yow da koo feree ba mu xool nga dal ne ko fii du yoon Cheikh Abdou Ndiaye seenug dajee daa tàng lool mais fam mujjee mooy yaa ko gañ lii moo di yoon Cheikh Bamba ak yónneen bi ngay mooy ngën gi moo doon mbër yor ay mbiram moo tax mu daan ana expert Cheikh Ndaam jugal loo ñëw fi man ana expert Cheikh Ndaam jugal loo ñëw fi man jaaroon nga fii daaw jéeg da aw wenn yoon voilà le gentleman de Kaolack expert loo Ndaam jëlal microphone bi yow mi ngi noon nga tiim ku jub di maagal